mu ne yónni leen ma ma indi leen xibaar ci lii buur bi gént yónni nañ ko nag mu ñëw ñu ubbil ko kasaw ga mu fekk fa yonentu yàlla yuusufa ba mu ñëwee nag sama borom ne mu ne yuusufa xée yow yuusufa ayuha siddiqu xée yow dëggalaa kon bi aftinaa fituñu fii sab'i baqaraatin ci juróom-ñaari nag simaanin yu duuf jamoo samiinin yaakuluhunna dana wan leen sab'un juróom-ñaar ci ay nag xijaafun yoo xam ne yu lompañ lañ wa sab'i sumbulaatin ak juróom-ñaari gubi dugub xudarin yu nëtëx wa uxara yeneen ya yaa bisaatin dañoo waw lii bëgg nga wax ñu lu muy firi laxalli amaan na man arjao ma dellu ila naasi ca buur baag mbooloo xam ma laxallahum basada ñoom yaxlamuuna ñi xam firéeg loola qaala yusufa ne ko tasrauna bay leen loolu nga koy firee dafa taxaw taxawaayu lamar bay leen sab'a sinina juróom-ñaari at de bën yu toftaloo fa maa xasatum lépp loo xam ne góob ngeen ko fa zaruuhu bàyyi leen ko fii sumbulihi ca góobam ya bañ mu yàqu te ci lay a lu dul néew mimma loo xam ne da ngeen lekk ko su boobaa loolu nag ngeen di bojj yi jëfandikoo ko la des ngeen bàyyi ko ca gub ya na ngeen xam ne nag fu ma yaat toog dana dikk min ba'di zalika gannaaw juróom-ñaari ati naataange yooya sabaxun juróom-ñaari ati beekoor beekoor yoo xam ne si daadun yu tar lay doon yooya nag bu ñëwee yàqul na dana ñu wan maa qaddamtum li ngeen jiitaloon lawu na ñeexal leen ci juróom-ñaari ati naataange ya lu ngeen amoon ci ati naataange yi da ngeen ko lekk ci at ati bekoor yi kon nag sakkanal leen su dana ko lekk ilaqa lu dul néew mimma tuxsinuna ci loo xam ne da ngeen mëdd ko su ma yaa tux dana dikk min ba'di zalika gannaaw juróom-ñaari at ati beekoor yooyu amun at fii eh, maanaam yu xaasu dana xettali def na xettali naasu nit ñi fii ci xatma da ngeen xettali ci taw wa yaasuru dana ñu nal lépp luy am diw lu mel ni raisin yeeg li ci aju danañ ko nal fi ci at atam daal naataange lay doon lii daal lay tekki lii la yonentu yàlla yusufa mi yàlla may mën a firi gént lii la leen firi lee gént gi juróom-ñaari nag yu duuf yi ngeen gént juróom ñi ñii wann juróom-ñaari juróom-ñaari nag yu lompañ di leen wann ak juróom-ñaari gubi dugub yu naat ak yeneen juróom-ñaari gubi dugub yoo xam ne dafa waw yee góob nañ ko yële góobuñu ko li muy firi daal da ngeen am juróom-ñaari at naataange yu toftaloo su boobaa nag nangeen ngeen denc lu ngeen lu ngeen bay bu ñoree la ngeen cay jëfandikoo rek ngeeni góob su ko defee bojj ko la ngeen dut jëfandikoo ngeen denc ko dencal ko juróom-ñaari at yi ñëw léegi nag loolu nag firi gént gi di tekki kon fii boo nekkee njiit war ngay fexe di sóoraale mbiram économie di sakkanal bañ a yàq ndax bu jafe-jafe ñëwee fekk préparé woon nga ko waaye président yu bëri lu ne këtti ne jonn daal dara duñ ci mënut dañ dul def préparation te préparation soo daal lu gut lu ama am solo la ci nit mu ne nag juróom-ñaari at yu naqari yooya nga xam ne lu ngeen dencoon ci juróom-ñaari at yu neexee da ngeen ko ci lekk bu paasee nag. dangeen ngeen moo xam ne atam naataange lay doon xéewal lay doon loo bay da ko góob loo ji dana sax dana naat raisin yi bëri na ngeen ko bëggee su ko defee nag lii la leen yonentu yàlla fa firi léeg géntam ga ci nga yëgee ne firi gént yombut Cheikh Omarul Fuutiyu biñ ko laajee firi gént mun a ñaara ci foor wali yow yàlla piir mbaa fenkat piir ñaar ñii dong ñoo xay ci firi gént fenkat yi piir nag ñoo gën a bari foo ca dem tey li ñaa ngay wër rek di firi gént ñii ngi ca yeneen yu kenn xamut waaye ala kulli haal firi gént moo fi des waaye dafa gént ñëw ci bukki ne ko dama laa géntal wala dama gént nga xenu ñaa nga xenu say ñax wu mag mu ne ko eh, loolu de yàpp la sa gént gi baax na mu ne ko après nga tegaat ca waneen sayu ñax ba mu ko ko laajee nag sëriñ ba ne gént ne bukki eh, loolu moom dee la bukki tiit ne ko waaye ba mu ñëwee dama koo mbas première sayu ñax wa daal yàpp la deuxième sayu ñax wi nag dee la mu ne ko ba mu ñëwee ma mbas ko moom génn ca wax ja jeex kon gént yombut bala nga koo mën a firi faw nga am cër ci yàlla waaye ko amul cër ci yàlla man ta firi gént moo tax imaam ahmad ñaar gënt nañ lu bokk ci benn jotaay te yëgantewuñ mu firil leen nu xuuteeg seen gënt ya kii ne ko dama gënt di noddu mu ne ko demal tàggoo danga nga dem màkka bala ngaa dee ak loo néew néew wërsëg mu toogaat keneen ñëw ne ko damaa gént man mii gént naa ba ma géntee di noddu mu ne ko demal jënd mbàjj ji danga dem kaso boo gisee nag ñoom ñaar ñëpp ci alquran ci la ko niitloo alquran ne woon yonente yàlla ibrahim waasin fi naasi bil hajji ci afaan la bàyyee ko fële tamit ci suratu yusuf gi balaa jeex danga nga dégg mu ne maanaam fa azana mu azinun ayatuhal ayru innakum la saariqun sàcc nag di ab saariq kaso mooy palaasam noddu euh, kon dana firi jéebaane waaye tamit dana firi noddu giñ xam rek xoote ca ne kër yàlla ga moo tax kon firi jënt yombut maam Khalifa Niass góor ak yàlla gu tedd gi moo ci manoon ñëpp ci jamonoom dañ ko daan raa ci gént ndax cër yu rëy yam amoon nag ci yàlla ndax ku yàlla may nga bokk ca gaa diiwaan bokk ci ensemble bi yàlla ba ñu doon yonent bi ñu ñu inallaahi ibadan ida araado araada kooka moom luñ la wax da nga xam la nga cay la taxawee moo tax nag fi di gëntu yomb nañ ci def attention fi di gëntu yomb de nii la ko yonent yàlla yusufa firee firi na gént ga nag ah, buur ba nag yéemu moo tax mu tofal ca ne waqaala wax na almaliku buur ba di rayaan inni naka man ara gént naa moom buur ba mooy gént mooy wax ba mu ko ñëwalee mu ne ko inni naka man a buur wax ne waqaala wax na almaliku buur ba mu ngoog léegi kon buur ba moo géntoon ci waqaala almaliku inni ara ba ba mu ko waxee kenn mënu ko firi ca ña fa nekk bu xaaba yaag ñëpp ñu ne addakaasu axlaamin la ngir ñàkk koo mën a firi yàlla dogal nag ki ne woon ñaanu buur gi fàttali ko foofa ku mën a firi gént te man ko bàyyi woon ca kaso ga te kooka fàttali woon na ko boppam mu fàtte ko diirëb xaraf yam ko waxoon nag uskur ne andra bi que muy fukki xaraf ak ñaar mu toogaat fu fukki xat ak ñaar loolu la ruuxul bayaan wax léegi nag fa la fàttali ne ba ngeen ma yónni rek. ma indil leen bu ngeen ma yónnee léegi ca kaso ga ma wax leen gént gi li muy firi bàyyi naa fa ku mën a firi gént ba mu ñëwee fekk na fa yonentu yàlla yuusufa tudd ko ay maanaam yuusufu xasaf xarfu ni daaga door a indi gan ak fale ne yaa ayuha siddiqu hé yow xarit bi yow dëgg kon bi kon léegi nag firil na ko ko nag ñu war a ñëw nag ci buur bi nag pour euh, euh, buur bi nag euh, jot na xibaar bi nag moom nag léegi li mu bëgg kon nag Yuusufa génn ci kaso ga ñëw ci moom moo tax mu ne waqaala wax na almaliku buur ba iitu nii andil leen ma bii ci ki gént gi te moo yonantu yàlla Yuusufa falamma jaahu ba nga xamee ne dikkal na ko rasulu ndaw la te moo yonantu yàlla Yuusufa qaala moom yonantu yàlla Yuusufa la ndaw la ñëwal qaala yonantu yàlla Yuusufa ku am dignité la mu ne ko irji dellul ilaa rabbika jëm ki sa sang fas alhu laaj ko maa baalu neswati ana lan mooy mbiru jigéen ña alati alaati ya nga xam ne xataax na dogoon nañ ay di yehu na seen loxo ya inna rabbi naka sama sang bi alimun aji xam la bi kay di hinna seen pexe mi bu la neexee tamit nga na rabbi naka sama borom mi nga xam ne mooy rabbul isati wal jabarut alimun xamaa kon la bi kay dihin na seen pexe mi léegi nag du ma génn mukk damaa bëgg mu leer naññ ndax nekk ci biir te set moo ma gënal nekk ci biti te tilim xaala buur ba ne maa xat bukkun na lan mooy seen mbambu yéen jigéen ñi israawattu na ba ngeen sàkkoo yusufa yusufa xan nafsi yi ci boppam lu mbir bi demee xul na ñoom jigéen ñëpp ñu ne ko xaasa joomun ñeel yàlla maa alim naa xamuñu alayhi ci yusufa min sooyun ci benn ñaaw xamuñ ci moom benn caaxaan nit ku jub ku ragal yàlla qaalat wax imraatul asisi jabari burba te mooy ka mu ne ah, laana léegi nag xas-xasa leer na naññi alxaqu dëgg ji ana man mi raawatoo maa ko sàkk woon an nafsi ci boppam wa innahu naka moom yusufa la min as-saadiqina na ca ñu dëggu na zalika yusufa ay wax ne bu ngeen gisee ma sàkku dañal daalika bu ngeen gisee sàkku dañal googu li yaalama ngir na xam moom sama sang bi te mooy asis bi ne an ni naka man lam axunhu xoruma ko ci soxnaam bil xay bi ci mbir mu may nekk ci fàddu ñàkk gim fa ñàkk nekk xuutuhuma ko di yàq këram te mu xuut te mu xóolu ma dugal ma fa te ndax wóor na ma péng ne wa anna laa naka yàlla laa yahdi du gindi kay dal na pexeem xor kat ña kon ñi ñu xor nañ def nànk xor kat yi kuy woor sa pexe du jub moo tax woor boo ca tappalee ba am ca tubay tappale ca ba am ca mbubb mbaxana jafe la ca xorkat foo ko fekk day gotteeku di gën di xées kam waroon di gën di xéeg moo tax yonent bi daan wax ne addil amaanata ilaa mani tamanaka wala taxun man xaanaka jooxeel ak kóolute ci kilo wóolu njiit lu mën a doon buñ la wóoloo ba falla ngay président walla ngay ab ministre walla ngay ab député wala ngay ab sénateur walla nga nekk di ab gouverneur wala ngay ab maire fexeel ba bul xor ñi la lañ la falee woon fexe koo matal soppi sa bopp ab jaam di leen liggéeyal ndax kat sayidul xawmi xaadimuhum la yonent bi waxoon waaye ba ngay soxla nit ñi yaa ngi yore numéro téléphone yoo xam ne ku la soxla jot la ku la bëgg gis-gis la nga wàcc jege askan wi lool dem ba falu rek xéeg ca kaw sori leen kenn mënatu laa jotati soppi nga sa numéro yi soppi nga say àndandoor yi soppi nga place yi nga daan fréquenté ña nga doon fréquenté soo demee ba soxlawaat askan wi commencé waat nag wàccaat ci seeni biir su ko defee. loola lépp nit ku mat du ko def nit ñi tamit amuñu fulla léeg-léeg nit ki def la loola nga nekk ca ba mu soxlawaat la ñëw jëndee la benn saakoob ceeb yaa seera di mbaa mu jëndee la a ñaari junne nga solop di set nekk ci àll bi hendu doo julli tusubaar doo julli tàkkusaan te bu la ko sa baay santoon baa sa yaay doo ko nangu loolu lépp pertement la te du jeex ci suñu ndawi réew yi kon gis nga xam-xam moo wóor bu xam-xam boo ko xamee mu wér loolu nëbbu nëbbu xam-xam ba dana la feeñal kenn mënu ca dara moo tax gis nga ñii bi ñu amee jafe-jafe ak luñ mën a am ci xalal luñ mën a am ci daraja borom xam-xam dong lañ dem war koo seeti mu mën leen a génne ci kàmba ak jafe-jafe gañ nekk ba ñu vérifié borom xam-xam ba kenn la ci leen ci mën a génnee mooy yonentu yàlla Yuusufa moo tax tamit xam-xamam booba moo ko yëkkati génnee ko ca kaso ga xam-xam booba moo ko fal ba mu mujj di président wu Égypte moo tax kon xam-xam boo ko yoree te mu wér nga di ko jëfee yàlla tax loo suufe suufe da nga yëkkati ko loo nëbbu nëbbu da nga feeñ bul yàkkamti di jéem a forcé ak feeñ ak feeñ boo ko bëggee forcé rek maanaam la mu lay jural mooy ak nëbbu relation duñ ko forcé bàyyil ko ba mu ñoral boppam. ak feeñ duñ ko forcé bàyyi ko ba mu ñoral boppam bu jotee rek yàlla dana ko defal boppam loolu la yonentu Seydina Seex ah, ah, na Tijaani waxoon Seydou Mouhamadul Xaafis ba ko joxee mbir ya mu mat sëkk dafa ne ko demal toog rek bañ laaj la ko bu ko wax kenn noppil rek kon saa yu jotee feeñ rek yàllaa koy feeñalal boppam waaye bis boo ko bëggee feeñal sa bopp nit ñi jéppi la nit ñi mere la nga safa di nit ñi te doo ca jëlee dara kon bàyyil ko boppam. moom mooy feeñal boppam yi nga Yuusuf ak na boom géeg kaso gaag coono bi mu nekk ak asin no ahabu ila yaak waaye xam-xam a tax tey feeñal na ko mu nekk ca kanam euh, population Égypte ba gannaaw ba mu bàyyi ko ca kaso ga su ko defee tamit lii déggee nañ ci dignité ci aayaat yi boo nekkee ñu tëj la ci kaso ci tuuma waay waay bëgg a génn te setoo bu la tax a génn fexeel ba ñu setal la nga leer nañ set wecc muy tekki ni sama dereet ji sama baay xabal ma yàquma ko maamam sama maama ko xabaloon yàqut ko kon man tamit duma ko yàq di ko jox samay doom waaye boo yàqee sa deret ji la sa baay xabal sa maam xabaloon ko ko nga door a yàqute ko ko jox ko say doom perte nga te loolu moo bari dafa luubal ko xam ne mënoo caa génn koo bokk ak du ca mën a génn fu ñu la tuddee ñëpp ruus am na ñoo xam ne soo ne maa ngi ma a bokk bokk nga xamale ko sa kër waaye boo ko yóbboo ci yenn gaara place yi mbaa ci yenn place publique yi rek da am gàcce ñi wax la ci lu la métti waa ja def na ko di tiitaroo diw sama sëriñ la wax ja bëri mu ne ko sa sëriñ boobu man sama tiriyan la waa ja sëgg lu mu cay teg loola baaxut bëri na koy toggoo muy sa sëriñ ngay fëgg sa dana fekk ab tiriyan am nit la bari na koo xam ne yaa ngi koy fëgg ne sama sëriñ la fekk ab wóoyób jàmbur nit la yooyu yëpp nag dafa jar a bàyyi xel moo tax Yuusufa biñ ko taqalee bëgg koo génnee la coow lay bari bari dafa ne demal ca buur ba fenn laa demut fii laay toog xaar leen ne ko na wax ak jigéen ña jigéen ña tamit kat lépp mooy ndeyu mbill ga mooy soxnaay buur ba di Sulayxa moom moom mooy ndeyu mbill ga mais suturaal ko ak teraanga ji ko borom këram defal moo tax mu jël mbim ma rek matale ko far def ko taam yi te jigéen ñëpp rek bu ne jigéen ña ñoom ñu duggaale. waaye jigéen ñi kay nag dagg seen loxo geeg cosaan la lépp dañuy bàyyi ko ci buur kii bi rek maanaam Suleyxa ba ñu ñëwee nag buur bi ne leen waaw léegi nag ñu ne ko maa alim na alayhi min su ku set la xamuñ ci moom benn caaxaan ah fa la jabar yi buur ba nag xam ne gàcce gi lépp moo ko moom mu ne koom nag ña ca wala ndoor ba moo daanu ca teen ba rawatina nga ca pind ba bàyyil ma daanu man tamit ana raawatuhu an nafsi man mii maa ko sàkku alaa na xasxasal xaqu ana raawatu an nafsi waaye wa innahu la min asaadiqin kon buñ la tuumaale te tëj la ci kaso loo bëgg a bëgg gaaw a génn bala nga génn nañ nanga set nañ la setal ndax sa mbokk yi duñu am gàcce suñ génn suñ tuñ la gisee ngay dox ci mbedd mi waaye nekk ci biti tilim nekk ci biir te sete ko gën loolu la Yuusufa tànn yonent bi sallallahu alayhi wa kenn du moom ci mën a sagal mbokkam daana toog ci mën a sagal mbokkam daan wax de waaye waa Yuusufa baax mi ngi nii ñu tooñ ko dugal ko ca kaso ko diira fukki at ñaar buur bi xoolu ko pour mu génn mu bañ ne moom du génn mukk lu dul mbir mi dafa leer naññi yonent bi ne fi Yuusufa nekk su ma fa nekkoon man damay génn du ma fa toog di xaaraat beneen ngantalu ca saasa rek man laay génn waaye wax jooju bu ko yonantu boo waxee sagal nawleem rek la waaye moom du moroomam benn yonantu ci yonantu yi lañ ko teg ci ay coono ay nattu mu muñ ko amul benn yonantu bu ko mën a muñ waaye nit ku baax dafa war a sagal nawleem moo tax doo toog rek fu ñu tudd sa nawle rek nga xëpp ca suuf loolu du du melaw nit ku baax moo tax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam. ak ci mën a joxe teraangam ak ci mën a tabaarakallaahu euh, euh, tuddal lu baax ci ab nawleem mu seedeel yonantu yàlla yusufa seede yu rafet yooye naan su ma nekkoon palaasam man de buñ may wax keroog lay génn du ma xaar di naan euh, dem leen ci buur ba ngeen laaj ko mbiram ñi doon dagg seen loxo yaag jigéen ñi ma doon sàkkoog yooyu yëpp man ke saasa génn loolu lépp sagal ko rek a tax waaye yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom du moromam kenn du moromam kenn ci mbaax du moromam kenn tabaarakallaahu tamit ci mën a muñ waaye tamit li Yuusufa daanee ne dama bëgg sama sang bi xam ne lam axunhu bil xaybi kon boo nekkee surga ci kër ñi fat la doy loola néeg bu la neex nga dugg fu la neex nga fanaan waay waaye bul nekkee ak caay-caay ca kër ga yonent bi nee na benn njaalo ci sa kër ak dëkkandoor fukki njaalo lay remplacer ci biti ndax kat kër ak dëkkandoor ga ñëpp la wóolu la neex dugg fay fekk nekk sa dugg yooyu yëpp saay-saay ak caay-caay nga fa nekkee ak ak mooy te mu bëri lool ci surga yooyu fanaan ca biir kër ya kon loolu lépp jar naa bàyyi xel loolu lépp ay jàngat la. yu ñu war a jëlee ci saaru yusufa vile yonentu beeg mën a joxe sag daana toog ma si yàgg mu ne laqad ajibtu min yusuf wa karamihi wa sabrihi wallahi ah, daa toog mu ne waay waay man di xéem naa yusufa ak man a muñam nga xéem naa yusufa ak tedd ngaam nga waay waay yal yàlla eh, yërëm yusufa moom ba ko gaa yi ne ko set nga génn kaay nga génn wuyu ji buur ba mënoon naa dem rek waaye baax a tax yonent bi ne walaw kuntu makaanahu maa axbartuhum hatta startu su fekkoon ne fi Yuusufa nekk laa nekkoon du ma leen waxal dara ba ñëwee di ma laaj gént gi lu dul ma sartaal ne an yaxrujoo ni ñu génne ma waaye nag wala qad ajibtu xiina ataahu rasulu fa qaala irji ila rabbika loolu man yéem naa ko yonent ba baax rek di ko sagal waaye duwul moromam kenn duwul kenn ci mbaax duwun moromam kenn ci mën a muñ duwun moromam kenn ci ci ak loraange yu rëy yiñ ko teg tamu toog muñ lépp moom sallallahu alayhi wa su ko defee nag kon yonentu yàlla yuusufa ngoog ak lañu ñu jàngatal ca loolu nga door nag war a commencé ci bopp xisib bi muy continuer di wax ci yusufa déglu leen fa yonentu yàlla yusufa di mujj ak nitam ña ak doomi baayam ya ko sànni woon ca teen ba fa muy mujj ak buur ba fa muy mujj ak soxnaay buur ba ko doon sàkku te lii lépp loola yóbbu ko ko ba mu demee sax ca kaso ga ñaar ñam fa fekkoon kii di nàndal kii yore ñamu buur ba ñu ne ko dañ lay seede ne sopp nañ la mu ne déedéet bu leen ko waxati bu ngeen ma soppee teg ma nattu fii ma dugg cofee rek moo fi dugal maa ngi nii sama baay ma sopp ba mënun maa muñ cofeel ga jural mag nattu sama doomi bàyyee mënuñ koo muñ ba dugal ma ci teen jaay ma jaam ma nekk sang ma nekk sang soppeeku ñu soppee di ma wax ne ab jaam laa cofeel gi euh, euh, buur ba jabar yi soxna sa amoon ci man buur ba tamit am ko ci man maanaam ba mënuñ maa muñee moo ma jural tey ma dugg fii tey ci kaso gi war fee di fukki at ak ñaar kon bu ngeen ma soppatee yéen ñaar ñii ma ja war caa jëlee am nattu fu may jëm xamatuma ko moo tax kon ni mbañeel di mën a loree nit ki ay noon di lay pexeel ni la ak cofeel ay soppe tamit mën a loree nit ki nga déggee ci tamit lu la yàlla may ci xéewal lu mu rëy rëy na nga musluwaat lu toll noona ci musiba xéewal gu nekkat na mu toll ni lay nattoom di toll lu jar bàyyi xel la moo tax tamit ni nit ki taxaw tàllal ay loxoom ne yow yàlla yàlla nga ma musal ci samay noon noonu la war a tàllal loxo yàlla yàlla nga ci ma soppe ni noon gu ëpp di lore ni la cofeel gu ëpp tamit di lore lu jar a bàyyi xel la yuusufa nag kontine wane wamaa u bari u duma dañal nafsi sama bakkan ci tarxiis na nafsa naka xeeti bakkan yi la amaaratun digle kon lañ bisoo yi ci lu bon illaa maa lu dul ka nga xam ne rahima yërëm na ko maa bi maanaam man lu dul koo xam ne rahima yërëm na ko rabbi sama borom ba musal ko te moom ki ñu la bokk inna rabbi naka borom sama xafoorun jéggalaa kon la rahimun borom ak yërmande la wa wax na almaliku buur bi gannaaw bi leen yuusufa firi lee gént gi mu ñu setal ko tamit ba mu set wecc la ne nag itoo nii andil leen ma bihi ci moom yuusufa astaxlisu ma jagoo ko li nafsi ñëw sama bopp ma man ma jagoo ko man mu jege ma sama diggante moom kenn du fa doxo ci buur lii mooy seen melokaan saa yoo leen joxe xam-xam rek bu ñu xamut ñu gis ci yow la ñuy bëgg rek dañuy mujj xam ak fiir nag jël encadré la jël jégal la seen bopp ba kenn du leen mën a jëriñooti ñoom ñi lay jëriñoo tax biñ gisee Yuusuf ak xam-xamam bu bëri beeg lam yu jéggi dayo rek euh, buur bi ne nama ma jege kii kay moom yéen jeexal ngeen ci waaye fa muy mujj tamit rek mooy buur ba lañ ko ràngaloon lépp mu jël ko ràngal ko yonentu yàlla Yuusufa léegi nag buur bi ñëw na nag ak yonentu yàlla Yuusufa nag jege si na ko Yuusufa nag war a génn kaso garak ndey saanam sangu ba set moo tax ku jógee koo kaso dem géej duul lu bees sol yére yu bees yu rafet wara a nag seet si buur ba ba muy dem ak nag mu dajale waa kaso ga waar leen baalu leen àq dénk leen ne leen maa ngi leen di ñaari ñaan premier gi mooy allahuma atif alayhim qulubal axyaar yow yàlla yàlla nga ñëwantiloo xol yu ñu baax ñi ci waa kaso gi moo tax képp kuy nit ku baax am yërmande am am benn tomb ci bëgg yàlla faaw ku nekk kaso da ko yërëm lii yonentu yàlla yusufa moo leen ko yërëm moo leen ko ñaanaloon moo tax loo soxore soxore nit ki du ñu ne ma nga kaso ga rek sa yaram daw ba mu paree mu ne yow yàlla bu leen nëbbu xibaar yi xibaar yi xew na ko yëral waa kaso yi loolu yàlla nangu na ko moo tax ñi ci ci kaso yi information yiñ am ñi ci biti amuñu ko ba leen yàlla tëjee seen jëmm yi la leen tijjil seen xel yi ñi xam ay information yoo xam ne ni seen jëmm ya tijjeeku amuñu ko te boo demee ca kaso ko dañ la wax ci réew mi loo xam ne suñ ko boo ko boko ko boo ko siiwalee bi tukki yusufa ko ñaanoon wala taxmi alayhim al axbaara ba mu paree tamit mu ne kaso nag ku ca génn ak sa njàngat kenn ku ne na muy jàngatalee kaso ak ni koy moromam mom pare ñu ko ko laaj na ko waaw kaso moom nu mel mu ne xabrul ah maanaam xabrul ahyaai wa samaatatil aadaai moom kaso daal mooy xabru ñu dund ñi xabru mooy ku ñu ci place rek kuñ tëj ci place mën too gént rek mooy sa bàmmeel bàmmeelam kuy dund la tëj la ci néeg ci abi féete la gannaaw mën too gént yaa ngi sa biir xabru bi mu ne tamit ndokk ak noonu la ku mën a doon bu duggee kaso rek sa noon yaa ngay bég kontaan waaye mu ne tajribatul asdiqaa la xarit danañ ci ñu dëgguñu danañ ci amee ay ak ak jàngatal xamee ca àdduna xamee ca doxalin euh, xamee ca loo xamee ne nii euh, xamuñ ko woon moo tax ku jógee koo ci kaso rek da ci am yeneen expérience yoo xam ne bokkut ak ba nga duggutoon ci kaso moo tax kon mu ne kaso daal ñett yi laa ci jàngat armée la kuy dund la ndokk ak noon la waaye tamit jàngat mu bees la ci koo xam ne nii nar naa baax waaye nag bu narta baax bu duggee kaso dafa cay gën a jëlee gàcca dafa cay gën a jëlee sax gàccaam nga dem moo tax ñu ne dem dem nga kaso demaat demaat kaso ñu ñett yoon far dëkk foofa sax noonu la ñenn ñi sax dem nañ ba amatuñ gàcce boo ne kaso ñu ne ah dañoo demoon rek ah, doon maanaam eh, ci ci dañoo demoon maanaam ci auberge yi waaye baa ngi tuñe ko ay hôtel mbaa ñu tuddee ko dañu nu permanente xam nga loolu wax gàcce nekkatu fa léegi nag yusufa ñëw na ba mu ñëwee fala maa kallamahu ba nga xamee ne wax naag moom buur bi moo wax ak moom xaala ci la ko buur bi ne ko innaka naka yow al yow ma tey la day naa fa ñun makiinun borom daraja ngay doon aminun borom ak kóolute ngay doon de yow kay sa mbir jeex na dafa ñëw wax moom yuusufa wax ak buur bi juróom-ñaar fukki lang ak ñaar fekk buur bi nag dégg na juróom-ñaar fukki làng waaye ñaar ya yuusufaa ko dégg moom déggut ko nag buur bi xam ne kii cadre pire la moo tax lañ cay déggee bëri na ñu nekk ci kasu fekk ay cadre lañ bëri ñu fa nekk ñoo xam ne ay nitu yàlla lañ nañuy bàyyi xel ca ñoom rawatina ñu leen di garde bari na ñu fa nekk ñoo xam ne ay boromi xam-xam lañ bëri na ñoo xam na ñu ngay fanaan ca kaso ga ci jëmm fekk seen rooxu yaa ngay fanaan ni ca aras kon kaso gi ku nee ngi ci waaye tamit lu nee ngi ci xoolal tay cadre bu mel ni bàyyee ko ca kaso ga ak maqaama yu rëy yi mu làmboo am fa fukki at ak ñaar ci ak tuuma ak ak tooñaange lii la yonentu yàlla yusufa ba buur ba waxee moom rek la ko wax ne sa mbir jeex na mu ne ko léegi nag mu ne ko nañu jël juróom-ñaari at yoo xam ne dangay bay di dajale bay di dajale lépp loo soxlawut bàyyi ko ca gubwa buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko maanaam bojji bu ñu soxlaa rek nag dem bojji si lay gën a sakkan nañ ko def dañ ci mën a dund dañ ci mën a dundale buñ demee ba ca at mu naqari ma juróom-ñaari at yi bu jeexee reen juróom at yu naqari mooy ñëw li ñu dencoon ñu mën koo jariñoo mu ne ko nag léegi man lii nga wax. ci wàllu économie sama xam-xam màccut ci doxalin bii sama xam-xam màccut ci maa yore réew mi mais xam bi ci yow la ne léegi nag kon lii nu ngeen mën a def man ko doxal mu ne ko nag ijaxal nii moom lay wax si nii mu ne ko ijaxal nii ardi ci ndàmbi suufu misra jox ma ma nekk ministre bi nga xam ne maa yore maanaam mbiram économie réew mi inni naka man xafisun borom ak wattu laa alimun borom ak xam laa lii daal xam naa ko yàlla ne wa kazalika naka noonu ñu xewee yusufa mu génn ca kaso ga gannaaw ba mu bàyyi ko ca teen ba makkat naa lañ dëgëralee li yusufa ñeel yusufa fil ardi ci suufu misra yata bawu dana wàcci minaa ca suufa xaysu saawu xaysu ya saawu fu mu ko soobee fu ko ca neex wàcci léppam fu mu Euh, maanaam xubbeeku na yàlla ne nusibu danañ jotale bi rahmat bi rahmat naa suñu yërmande man na saawu ku ñu soob wala nu diwoo du ñu sànq ajaral muxsinina payoor ak way rafetal ña wala ajarul axirati payoor ak àllaaxira nag xayrun moo gën ci payoor ak àddina li la seen ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wa kaanoo te ñu nekkan na di ragal yàlla léegi nag lii njàngat yu bëree ngi ci gis nga Yuusufa ñu fa bàyyeekoo ca kaso ga dem ca pale ba kon kasoog pale jege nañ bari na kuy politique nga tëj ko jublu ci tëj ko ndeke yow ba nga koy tëj yaa ngi koy hubbil pale bi yaa ngi koy tëj ca kaso ga di ko hubbil buntu pale bi moo tax ñaareel politiciens yi kuñ ci tëj rek bu génnee maqaamaam darajaam mbooloo am gën a yokk moo tax yàlla ne ba mu génnee ca kaso ga rek la dem ca pale ba wa kazalika makkan naa li yusufa yata ba wowu min haythu yashaaw léegi nag Yuusufa ñëw na ba mu ñëwee rek war a dugg ca pale ba nag siis ba te mooy ki ko jëndoon ci prix bu cher boobu dëkkaloo woon ko ci so euh, euh, ne kër soxna sax moom ba Yuusufa ñëwee lañ ko folli mbiram jeex ndeysaan dañ koo folli ca déwén sa mu génn àdduna léegi nag soxnaam soosa nag ndeysaan mu gën a yonent yàlla Yuusufa takk ko waaye bi koy takk ak soxna si sonn na soxna si sonn na ndeysaan dem ba màgget. di di di di misère di ko xelaat ba mujj gumba yusufa nag bañ ko falee daana génn léeg-léeg di perminaat mbooloo topp ko armée bi ndeysaanam nag di ko tëggal junjum ya lu ëpp maanaam téeméeri junne ci ay sang ci nitu misra ya ci ay kilifa topp ko mu war ñoom tamit ñi war benn bis nag noonu muy génne rek ndaw si nag euh, di ko yuuxu nag ndaw sa nag wax wax yoo am ne ju daw a daw yaram la ndaw sa dafa ne subhaana man jaala al muluka abidan bi masiyatihim wa jaala al euh, maanaam mulukan bi taatihim wax ji frappé yusufa mu ne man de tudd naa buur bi def buur ya ñii ay jaam ngir sababu seen ak mooy yàlla la yàlla fale nga nekkee fi mooy dana la soppi dana la folli soppi la nga nekk ku torox mu ne tamit xéem naa buur bi nga xam ne moo defoon jaam ya ñu nekk di ay buur ci sababu seen ak topp yàlla yuusufa mi ñu jàppoon na jaam la ba mu saxee ci topp yàlla di xoor di julli guddi di def lu baax mu ji na soppeeku malik di buur buur yële tamit falo jàppoon ko ay jaam te tegoon ko lañ ko doon teg bañ fa nekkee mooy yàlla dinañ sàngara di def lu bon ñoom tamit mujj nañ soppeeku ay jaam yusufa nag wax ji nag frappé ko mu taxaw xoolu ne waaw kan moo wax wax ji andil leen ma ko ñu andi ko ndeke Suleyxa la ñëw yusufa ne ko waaw yow yaay kan mu ne ko ah xàmmewoo mu ne ko déeréet mu ne ko maay imraatul azizi ma doon jabari buur bi sa kilifa ku ah yow lii xéemee na di waxal loo bëgg moo am kum ko boole woon na wax li mu bëgg nga dimbale ko ci lépp jox ko ko mu ne ko bëgguma dara lu dul rek nga ñaanal ma yàlla ma delluwaat ci ndaw ñaanal ma yàlla tamit yow nga takk ma loolu dong laa bëgg yonentu yàlla mën na ko di moo gisa la moo gisa mooy lu lottal xeet wa yonentu yàlla yusufa ñaanal ko mu dellu ci ndawam ak taaramba rafet lool ba mel ni na meloon ci ndaw bu ko defee nag yonentu yàlla yusufa takk ko dañ ko ko jébbalee fekk nañ mu nekk azra xiig koo xam ne kenn musta ànd ak moom ndax waxoon naa la ne la jëkkëram ja inin la ñeen ñe ne sa xasiir la dañ koo gaw mënta sëy ñeen ñe ne inin la sàkkara su ndaw la am mënta booloo lu ci mën day am daal soxna sa soppeeku na di jabar yonentu yàlla yusufa su ko defee nag ñu war a nag mu bokk ca kii ba moog yusufa sax am na ñaari doom kon gis nga ko bëri na looy yàkkamti ci ak mooy te boo teeyee mu dagan la bu yonentu yàlla yusufa yàkkamti woon tey ba def ak moom lu dugutoon noona li koon tey lii du am moo tax bëri na looy yàkkamti di ko def wallahi boo yoon dana ñëw te buy ñëw dana gën a neex te gën a tegu ci woon nga jële ci ngër ma ndeg yàlla waaye bu la yàkkamti yàqalee rek moom nga am musiba kon lu jar a bàyyi xel la aaya jooju li muy gàtt gàtt jàngee nañ ca teey jàngee nañ ca dal jàngee nañ ca timit bañ a topp sa bakkan ndax dafa lay dugal ci gaalu musiba jàngee nañ ca ne nattu ku ko muñ mu soppi bu yàlla nattal la ci ay xéewal yi dul jeexati ba yonentu yàlla yusufa mu ñëw na takk kaso ga mujj mu jël na ko nattal ko mu dem ca ka mu dem ca mu dem ca maanaam pale ba yàlla ne waawaaw nu siibu bi rahmatina man na saaw wala nu deew ajral muhsinina képp kuy rafetal sa payoor duma ko sànk man yàlla ci àdduna laa wax di waaye payoor ak àllaaxira nag moom moo gën gu àdduna moo tax mu ne wala ajrul aaxirati xayrun lillaziina aamanu wa kaanu yattaquun léegi nag mbiram buur baak yuusufa ngoog lum cay teg mooy doomi bàyyi yuusufa ya nag la yàlla di wax si nii kon yàlla fayul na yuusufa ci sa sulay xaam mii tegoon ko lam ko teg gina feebar mu gën a màgget mu gën a gumba mu gën a soppeekub jaam ba mu yaakaar ne moo doon sang mu soppeekub jéebéer yàlla fayul na ko ci asis bii di sa jabar jëkkër maanaam jëkkëram jëkko tëj ca kaso ga ngir topp maanaam kàddug jabaram ne ko ñaara maanaam teg na ma gàcca bàyyil ma taxaw a ak population bi jégalu leen mbaa nga tëj ko ci kaso gi ba mbamu ma mbamu ma dagg dagg gis nga ko kon moom moom keroog ba yonente yàlla yusufa génnee rek la folleeku moo tax bëri na kon koy tëj koo xam ne bu génnee yow nga nga dugg bu faloo rek buy génn rek falu yow nga mujj folleeku day am yile yëpp yàlla nga koy jàngale kon alquran bàyyiwut dara wax ja nag jeex mu war a des nag kon euh, nam def ak doomi baayam ya nag déglu leen fa mu jar moom nga xam ne kon ku muñ da nga mujj muñ doomi baayam ya ko jëroon dóor ko jaalor bi ko dugal ko ca teen ba ray benn mboti taqal deret ca yooyam ya fàtte koo xotti ñëw ci baayam ne ko till ga lekk na ko yonentu yàlla yaquba ne ah gi till de moo laa biir lekk sama yaramu doom ja te xotti hut yëreem ya ñi xam ne kat pexe mañ doon pexe luus na ndax yàlla kat inna laa laa yahdi kaydal xaayidina pexem koo xam ne dafa war foo ko fekk dana am lu ci manqué su ko defee nag ñooñu fi ñu jaar ak moom mooy rek mujj nañ réew ba ba côté boobu yëpp dugg ci bekkoor xamatuñ lu ñu lekk ñu war a nag jéggi war seeni war waaye ci gëlëm ci ay mbaam ci ay baxla war a ñëw ñëw nag ca Égypte di wut lum dundee ndeke kañ fay fekk si foofa kat ci Égypte seen euh, doomu baay biñ jëwal sànni ko ca teen ba lay doon loolu la film bi jàngal ma lay wax si nii moo tax mu ne wajaa dikk na exwatu yusufa mbokki yusufa ya ngir di sàkku ci xontu ca misra ñoom ñëpp ñëw nañ ba mooy bunyamin fa daxaloo tàbbi nañ àll yi ca yusufa fa arafahum ca saasa la leen xam fekk woowu mbir moomu ñoom munkiruna woy fakk lañ la woo ñeel yusufa xamuñu ko waaye yusufa mu leen jàkk rek la xam mu ne leen waaw yéen ñii fu ngeen bàyyee ko ñu ne ko kanaan suufu kanaan ñun doomi yonentu yàlla yaquba lañ mu ne yéen rek la am ci ay doom ñu ne ko déeréet am na koo xam ne suñ mbokk la woon ñoo bokk baay waaye moom la suñ baay gënoon a bëgg yàlla dogal mu sànku léegi nag bàyyi na fa rakk rakk ja moo des ca kër ga ak suñ baay mu koy fàttali koo kooka lii la léegi nag Yuusufa laaj na leen bañ tontu ko mu ne leen ndax yéen nekku leen ngi ñëw fii nekk euh, di di agent secret ci réew mi mu ne ko déedéet doomi Yaquuba lañ de bu ko defee nag wala maa jahasahum ba nga xam ne waajal na leen bi jahasihim ca seen natt ci matal seen natt ya xaala la wax ne itoo nii andil leen ma bi aqin ci mbokk làkkum boobu ñeexal na la min abikum tukkee ko seen baay allah taraw na xanaa gisu leen ani naka man u fii maa ngi matal alkayla natt ga wa ana man xayrul munsilina maa gën ci way gën a laña fa in lam taatoo ni bu ngeen ma indilut bii ci ko ngeen wax ne moo fa des fala kayla di teg natt làkkum di leen ñeexal xindi fa man wala taqaraboo ni te bu leen ma jege de baleen yusufa ne a yéen rekk la seen baay am ñu ne ko déeréet des na ñaar kenn ka moom la suñ baay gënoon a bëgg waaye dafa sànku waaye waxuñ la ko sànk suñu baay nag jël rakki kooka di ko dëfaloo di ko fàttali aw naqar ca magam ji nga xam ne moom la ñàkkoon moo tax ñun fukk ñii ñi ñëw bàyyi fi kooka keneen ke leen loon nag sànko na moom gisatuñ ko nekke kooku kat mooy yuusufa mii ñuy wax ñu ñëw di sàkku ci moom yuusufa ne leen waaw danaa leen waajal nattal leen ba mat sëkk ci li ngeen di si waaye maa ngi leen di ñaan bu ngeen demee ci seen bàyyi ngeen sàkku mu jox leen kafa des ngeen ñëw su ngeen ko defut nag bu leen fi ñëwatee duma leen nattal dara te bu leen ma jegeeti ñoom nag ñu ne baax na départ nañ nag yonentu yàlla yuusufa jël nag xaalis bi nga xam ne moom lañ doon jëndee marchandise mooma dugalaat ko ci seen bagage yi te ko xam nañ ne ñi ay anbiyaawu lañ duñ lekk xal li jàmbur bañ nañ ko ba gëléem ya ñu waroon ak mbaam yaag baxla ya dañoo takkoon seen gémmañ ya bañ yàq ca suufu jàmbur xam nga fa la maandu mën a yam ko defee nag bu ñu demee ba gis ne yóbbu nañ marchandise indiwaat lañ doon war a jëndee marchandise ma faaw ñu dellusiwaat te loolu la ñu bëgg ñu dem rek tekki seen bagage ya fekkaat ca seen dërëm yañ joxe woon 40 millions nga joxe woon ne nañ la jaay bagaas ci ñeenti conteneur ñu jëlaat 40 millions dugal ko ci dugal ko ca conteneur ya waaye xam nga ne kon yow kay mujj nga kaañu. léegi nag loolu lépp Yuusuf ay fexe rek bëgg ñu ñëwaat te wax na leen ne bu ngeen di ñëwaat indil leen seen rakk da ngeen fa bàyyi ñu ne ko ah danañ danañ ci ñaan suñ bàyyi jéem a pexe ba xam danañu ko joxam déet moom lay wax si nii xaaloo doomi baayam ya ne ko sa nu raawi dina ñu sàkku xanhu ci moom abaawu baayam suñ demee daal luñ man ci farlu ci pexe danañ ko def ba suñ bàyyi jox ñu ko wa innaa naka ñun la faa'iluuna way def lañ loolu de waqaala moom yuusufa wax nag li fidyati ñeel ferom ya te mooy surga yooyu liggéeyee ca pale ba mu ne ijaxaloo delloo leen mooy def leen bidaatuhum seen dërëm ya fii rihalihim ke seen ndab ya laallahum mbastale ñoom yaarifunaha ñi xàmmee ko te buñ ko xàmmee rek fokk ñu ñëwaat idan xale boobu ñu delloo ilaa ahlim jëm seen ñoñ ña buñ ko dindee rek danañ ko gis te faw dañ delloo laallahum mbastale ñoom yarjiuna ñu dellu si léegi balaa yàgg falammaa rajoo ba nga dellu nañ ilaa abihim jëm seen baay xaaloo lañ wax seen baay ne ko yaa abaanaa yow suñu baay mu ne ah tereef na min naa ci ñun alkaylu natt gi foo mee boo gisee natt gi manqué fukk lañ waaye buñ amoon rek kee suñu rakk mu dem ñu fukk ak benn kon nag fa arsili hebalal maanaa ànd ak ñun aqaanaa suñ mbokk mi nakkatal ñu mat ci ak natt am ñu jàng yekkatal bu ko defee mu natt wa innaa naka ñun la xaafisun a wattu lañ la woo ñaar ko dañ ko wattu de xaala seen bàyyi ne leen hal amanukum du ma leen xóolu alayhi ci moom ilaa kama amintukum comme nu ma leen ñàkkee woon a xóolu min qablu ci njëkk bu la neexee nga taawil ko masdar man de du ma sama xóolu amut ci moom comme sama ñàkk a wóolu nu ma am ñàkkee woon ca mbokkam ma min qablu ci njëkk waaye fa laahu yàlla xayrun moo gën xisan ci wattu wa moom yàlla tamit arhamu rahimina mooy yërëm ak wa yërëm ña wala maa fatahu ba nga xam ne hubbi nañ mataahum seen bagage ya wajadoo lañ fekk bidaatuhum seen dërëm ya ruddat delloof na ko ilayhim jëm ca ñoom xaaloo ñu ne yaa abaana yow suñu baay maa nabbuqi lan la ñuy sàkku xam nañu jàng maa yabbuqi nañ la ñuy sàkkoti ci tedd ak tedd ak tedd nga buur bii billaay buur moo baax moom de xoolal haadihi lii bidaatunaa suñ dërëm yi la ruddat delloof na ko ilay naa jëm ci ñun wa namiru te ñu nii ah maanaam dikk nañ ànd di kontu xontu naa suñ ñoñ ñi ñëpp si nañ ànd ñam boole ko lañ doon jëndee ñam wa mu jox ñu ko muy suñ xaalis ba wa nax fas nañu wattu kon nañ bàyyi ñu bàyyi ñu ko rek ñu yóbbu ko ndax mu gën a dolleeku wa nax fas nañu wattu axaanaa suñ mbokk mi wa nas daadu bu ko defee ñu dolleeku kay la baxirin na tag gëléem ndax bu waree gëléem ànd ak ñun ba ñuy ñëw nii fukk lañ dañ kon dañu indi fukki sa fi ak benn zaalika loolu kaylun zaalika loolu le kaylun ak natt la goo xam ne yasirun gu jàppandi la buur ba ndax buur bi ku tabe la qaala yusufa ne lan la du ma ko xebal maa ko mu ànd ak yéen hatta tuutu nii ba ta ngeen dikkee ma mawsiqan ci ndëgër laay mooy da ngeen ni gëñ wu dëgër dëgër min laay gu bàyyi ko ci yàlla ne la taatunu nii da ngeen ma andil bi ci moom illa an yuxaata lu dul ba peege bikum ci yéen xanaa dee gu ñëw rek dal ci seen kaw yéen ñëpp xam ne kenn mënta mucc wala ñu not leen ba mun leen ko dara fala maa atawu ba nga xam dikkal nañ seen baay maw si xawma seen ndëgër laaye te moo ñu gënal ko ne ko dañ ko andi doo ci am lu la naqari xaala la wax nag ne allahu yàlla wakiilun aji seede la ala maa naqulu ci li ñuy wax man ak yéen bu ko defee nag lii leer na kon yonentu yàlla yuusufa ngoog ba mu demee ba buur ba fal ko folli xasis ba la mu njëkk a def pour mën a doxal mbiram économie nga xam ne kii économiste la xam-xamam màcc na ci lool ba jéggi dayo mu wax ak buur ba buur ba mu ci xam-xamam ak fasaam su ko defee nag buur ba fal ko gannaaw bam ne ko ijaal ni ala xasaa'inil ardi kenn du yonantu bi yonantu bi wax ne Yuusufa fa yàkkamti bu waxutoon loolu rek ca saasa dana koy buur bi fal waaye wax jooju tardeel na ko ba ca déwén sa lañ ko door a fal te déwén sa lañ ko fal folli euh, sanga ki kilifaam ga te mooy xasis ba kooka tamit rek booba la ca déwén sa la génn àdduna ñu sampal yonentu yàlla yuusufa lal wurus gudd ñaay ba fanweeri xasabu la def nag ay lalto lu mat juróom-ñaar fukki lal lalto yuusufa nag ne lal bi de duma ci toog moom de euh, maanaam euh, Yuusufa ne kon lal bi daal danaa ci toog ngir dëgëralee ko nguur gi sa nguur gi naka noonu tamit euh, mbaxana mi nag muy muy taaj bi moom duma ko sol ndax bokkul ci colaayu samay maam ak samay baay foofa rek nag mu faloo yàlla nattu leen beekoor tàbbi ca mbooleem àdduna bi ci réew ya ko wër yépp léegi nag fekk Yuusufa moom ku mën a doxin la ku mën économique la dafay def at mu njëkk mi bu beekoor ñëwee moom daal mbay mi yépp ku ko bëgg ci wàllu ñam ay dinaar ngay joxe ki dërëm mu def noona ba mujj mbooleem luy dërëm ak i dinaar ca réew ma mujj na moom ko ca déwén sa képp ku bëgg a jënd takkaay ngay indi ceen ay lam ay jaaro ca la ko def bay xam may jeex lépp luy takkaay ci réew bi moo ko moom ca gannaaw déwén sa këpp ko bëgg a jënd say daa ba ngay indi indi nag wala xar wala béy wala gëléem wala bax la bay xam may jeex lépp luy bax la ci réew bi moo ko moom ñeenteel ba muy jëndee marchandise ya pàkk ya moom ngeen di joxe gannaaw déwén sa su ko defee tamit nag ci juróomeeli at ma jaam yi jaam nga koy jox ak ay jéebéer maneen xat ma ca tegu tamit di juróom-benneel ma seen doom yi ngeen indi mu joxe leen ko ay ñam ca gannaaw déwén sa nag di juróom-ñaareelu xat ma seen bopp ngeen di joxe léegi juróom-ñaari xat yi nii la ko yonent yàlla Yuusufa réglé mu gën a moom lépp réew mi ba mu paree nag ñépp géemu mu ne leen nag maa ngi seedeel nit ñi di seedeel yàlla ne goreel naa leen yéen ñëpp. lépp lu ma jëloon ci yéen tamit danaa leen ko delloo da ko yore ca dërëm ya ca dinaar ya ca baxla ya ca ca meññant ma ca takkaay ya ca jaam ya ca njaboot ga payoor àllaaxira lay gën lay hut te wala ajrul aaxirati xayrun def na la Seydina Ousmane defoon dañoo niroo Ousmane ku rafetoon la dañ daan wax ne jamonoom gannaaw yonent bi Ousmane a fi rafet ak euh, soxnaam sa Sayyidatuna Ruqiya ba dañ leen daan ñaawal sax Quraysh di leen way naan gën a rafet ci nit ñi mooy Ousmane ak jëkkër maanaam Roqiyatu ak jëkkëram ja di Ousmane Ousmane tamit benn bis ma bekkoor dàbbi na Madina mu dem jëli marchandise ay conteneur ñëw di ko jaay luñ ko tegal mun ne yokku leen yokku leen man daal lu ma jëndee woon junne ku ma tegal fukki junne ma jaay ko. gaa yi kenn mënut am fekk maa tey ñaari gën a waxuma la ñett mu ne danaa ko jaay koo xam ne nag mooy man jaa bil xasnati fa lahu ashru amsaaliha delloo lépp may leen ko kon nit ku baax noonu lay def.